sëñ <laughs> Mbacke ça fait longtemps. oui. Euh, grand bi daa fekkee nag dégg naa lu ñu wax bu baax. Idrissa Seck les fameux euh, les fameuses audiences de midi. la veille maag sa Seck gise nañu. cyber campus. fële ca Thiès. mu di ma laaj est-ce que war na dem gisee ak Ablaye Wade am na keneen ku ma àndaloon bëgguma turam comme tudd turam comme nekk fi. ma ne ko bu ma sañoon doo dajeeg moom. parce que sénégalais yi aujourd'hui ak prime victimaire bi nga am gis nañ ne dañ la tooñ dugal na kaso ñoom loolu lañ jàpp ñu bari ñu bari am benn affection bu ñu am ci yow affection boobu ñu am ci yow bés boo demee fekki wàdd ah lu bari dina wàññeeku on était à la veille des élections de 2007 ni ñuy waxtaan noonu téléphone am sonné mu isolé wu 15 minutes après il revient mu ne ma sama kàddu jiitu na ma Al Amin moo ma doon woo nee na l' audience est pour demain midi. Mm-hmm. moo tax nga daan dégg dans la presse ñu naan les fameuses audiences de midi. Mm-hmm. je d' accord le d' accord 2007. donc li mu wax Serigne Mbacké Ndiaye li mu wax laay dëggal. Mm-hmm. que moom sa Seck. pour mu fekki Ablaye Wade dafa am ñu doxoon ci diggante bi. te Ablaye Wade ci boppam bëggoon na Idrissa Seck ñëw. tout à fait c'était son plus grand souhait. Mm. parce que bëgguloon jàkkaarloog moom. mais moom ci boppam Idrissa Seck avait envie de participer aux élections mm. natt boppam ablaay Wade waxtaan ak moom bàyyi ko mu dem ci ci ci ci élection yooyu. mais damay ñëw ci li nga xam ne mooy discours bi mu mujjee def mooy sa conférence de presse. Mm-hmm. xam nga ñu ngi wax erreur d communication mais man gëwuma erreur de communication. non pas du tout connaissant le bonhomme Idrissa Seck lu mu def suba ba ngoon moo ko tey. moo ko non dama dama lay wax lu leer rek sa sekk lu mu def suba ba ngoon il a très bien réfléchi xam nga le requin bulldog. xam nga le requin bulldog requin la boo xam ne il nage en eau trouble benn. sa Seck c'est ensuite un poisson boo xam ne vraiment catadrome comme yi mooy il peut vivre en eau de maire comme en eau douce yaa ngi de balaa moo mën a manœuvrer rek yëf yëngu jaxasoo ci lay gis moom di placer ay points il aime nager en eau trouble gis nga bu muy ab lay Wade attaqué wul Ablaye Wade Karim lay attaqué loolu laa bëgg mu leer ci bopp Sénégalais yi est Karim la cible parce que Idriss Seck est dans une logique d' de tous les potentiels candidats en à commencer par euh, Macky Sall gentiment la ko ne amoo droit def troisième mandat de manière métaphorique wër wër wër wër mais li ñuy jàpp mooy mënoo dem bàyyi ma ma dem donc éliminer na Macky Sall gentiment pour qu'il n'y ait pas de rupture brutale mu jàll ci ki nga xam ne mooy Karim Wade attaqué bàyyi ji donc leer na Karim ni ko attaqué da koy won carrément ne ko yow bokkuloo parce que euh, nu mu tëti euh, frontale envers Wade et rien ne le justifiait c'est-à-dire que Wade du candidat wadd mën naa ne entre guillemets il fait pas l'actualité ba tax nga war a mën a génn yow di ko attaque frontalement il faut voir derrière derrière c'est Karim Wade yaa ngi dégg mm-hmm. Ousmane Sonko daf ko tendre piège xam ko wax na nga dem damay organiser ay assises na nga yónni say waayu Pastef ñu ñëw taxaw foofu ne yow kat Euh, bu ñu la li ñu la tuumaal bu dee am na ba boo nekkoo prési nekkee président euh, da ngay da ngay da ngay benn nangaw nga engagé wu ci loolu ensuite mu ne ko le respect des institutions notamment la justice mooy lu justice mën a kii tamit na nga ko nangu donc kooku tamit mu ngi koy mu ngi nekk ci logique gu écarté ko donc faut pas que ñu jàpp ne Idrissa Seck li mu def dafa def benn embardé def benn erreur de com déedéet bi ma bëgg ñu jàpp mooy trame bi mooy dans une logique logique d'élimination de tous les potentiels candidats et même bàyyiwul sax sénégalais yi quand il parle lui de sa dame ne ba ma koy euh, ñu baal ma ci kàddu gi ba ma koy labat pour mu gën a rafet ba ma koy labat dama ñëw euh, nekk wax ak moom mu daal di may daax ma dem sama yaay wax ko mu ne ma ah yow de koo labat mu bañ moom euh, yaruñu ko mais Idriss Seck waxul ak jabaram sénégalais yi lay waxal labat na sénégalais yi deux fois ñu daax ko donc sénégalais yi la bëgg wax ne man ils ignorent ses capacité moo tax ñu bañal ko. moo tax ñu gàntal ko c'est métaphorique. donc waxul ak jaba son histoire de sa femme ne nous intéresse pas il le donc mais derrière sa femme il faut voir les sénégalais il faut remplacer Mame Penda par les sénégalais. boo ko defee di nga xam exactement Idrissa Seck fu mu jëm gis nga Idrissa c'est un cas symptomatique. boo ko bëggee analyser il faut nga xam nit ki ak nan lay fonctionner ak nan lay doxalee Idriss Seck ne fait rien au hasard <coughs> amul lu muy def par hasard amul lu muy def parce que dafa juum da ko réfléchir du nelaw guddi day toog di xool li muy wax. xam na li muy wax de. <laughs> mais mais parce que même aaye yi déglu ma même aaye yi c'est trié sur le volet. Mm. parce que doo toog ba yàgg rek benn aaye dikk sa bopp déedéet. dans le discours daf koy harmoniser de tell sorte que xam na ne bu yegsee fii war naa dóor aaye bi bu yegsee fii war naa dóor aaye bi est millimétré comme sur du papier à musique. même aaya yi mu utilisé bi muy ndogu ak Macky Sall ba ñuy julli. voilà tout est tout est réglé sur du papier à musique comme sur du papier à musique bu amul hasard. mais loolu laa bëgg Amadou moi je suis d'accord avec li ma doon relever man may relever mooy. quel que lu tax mu wax. Mhm. calcul beeg analyse bi mu et tout sur la personne de Wade. loolu laa wax ni moo jaaduwul. non soit nag la raison. là on est d'accord non c'est-à-dire que là. on est d'accord mais man je suis allé au-delà je condamne la démarche voilà. je ne suis pas d'accord parce que Idriss Seck li ko Ablaye Wade defal xam nañ ko mm-hmm. man je suis pas en train de légitimer li mu def mm-hmm. cest dire que je j'essaie de voir au-delà waaw connaissant Idriss Seck au-delà de cette affaire là lan moo war a justifier mu mën a attaquer Ablaye Wade y a rien qui le justifie mm-hmm. c'est-à-dire que boo amoon un bu tax mu attaquer Ablaye Wade di nga taxaw ne lii moo tax mu attaqué ko Ablaye Wade attaqué wu ko PDS attaqué wu ko Karim sax attaqué wu ko. mu jox attaqué ko. donc loolu du hasard ci Idrissa Seck Idrissa Seck bu la njëkkee sànni xeer xamal na mi ngi toog ci ay xeer. yaa ngi dégg wax ni bu la seen njëkkee sànni xeer ma nga toog ci ay xeer bul solo sa bopp donc moom en réalité xam na li muy def maintenant nag démarché bi ak nam ko defee surtout côté Wade mën na tey xel. mais li leer ba des comme li Mansour sax sànq ne bon wóolu ko ne moo Macky Sall réeroo wu ñu non non non Idrissa Seck li ko dugaloon sax ci ci ci ci mouvance présidentielle bi il se disait que bés bu président Macky Sall amee problème mu candidature je suis le succédané le produit de remplacement maay nekk candidat Benno Bokk Yaakaar mais en réalité Idrissa sec xam na ne mun te nekk candidat Benno Bokk Yaakaar. dafa bëgg Macky Sall non dafa bëgg maki Sall bañ présenté wu utiliser un factotum. moom mu battre ko parce que il est confiant que moom bu dajeeg un koop ku Macky Sall Macky mën a teg Idriss Seck mën na ko daje gagné moom loolu la jàpp mais pas mu janoog Macky Sall donc il écarte Macky Sall et il pousse le président Macky Sall à que mu jël un un un autre parce que moom xam na ne mënut a nekk candidat Benno Bokk Yaakaar donc day jël un autre Macky Sall jël un autre moom mu battre ko bu janoog Sonko xam nga lu mu koy opposé l'expérience de l'État et puis. le fait que il il il rassure keroog boo gisee xàqataay beeg reetaan beeg yooyu yooyu yëpp c'est c'est dans la com dafa bëgg a woon sénégalais yi moi je suis je suis la personne qui rassure nitu jàmm la maa ngi ree di xàqataay bokk maag ñee nga xam ne bés bu ñu jogee dëkk bi tàkk donc moom buy opposé Ousmane Sonko loolu lay proposé sénégalais yi ne man je rassure et j'ai l'expérience euh, de de de de de l'État contrairement a Ousmane Sonko donc ñaari affaires yooyu lay opposé Ousmane Sonko Macky Sall li mu opposé c'est très simple ñu bàyyi Serigne Mbacké foofu laay terminer Macky Sall li mu koy opposé c'est très simple mooy que mënoo nekk candidat gentiment parce que mënoon na mënoon na directif ah ne ko constitution bi nee na mënoo nekk candidat mu jeex. mais no non non daf ko waxin la. nee na Serigne Mboup Serigne Diop moom laa lay wax moom laa lay wax loolu yëpp c'est enrobé. non non loolu yëpp c'est que loolu yëpp ay la. Mm-hmm. loolu laa bëgg nga comprendre mënoon na wax carrément que mun amoo droit point. comme ni ko ñeneen ñi di waxee mais daf ko rafetal diw waxtaan naa ak moom wër-wëruloo loolu yëpp mooy gentiment bàyyil jëlal keneen moom xam na ne mënut a dem pour Benno Bokk Yaakaar ça c'est Bokk Yaakaar duñ topp. ci ginnaaw mais Idrissa a nour euh, Amadou attention Idrissa a na nekk. le loolu maa la loolu kay laa la wax léegi dama ne la. ba ah. muy dugg. Ah. ba muy dugg Benno Bokk Benno Bokk Yaakaar ba muy bàyyi xam nga Bokk Yaakaar la bokkoon. ñoo fal Macky Sall te am na am na ay discussions si ah. c'est clair mais dama ne la. moom ci boppam Idrissa Seck ba muy rejoindre le président Macky Sall c'était dans l'objectif que bés bu amee une difficulté concernant le mandat moom mooy nekk le succédanaire je l'ai dit tout à l'heure pas une difficulté concernant le mandat Idrissa ba muy dugg dafa amoon yaakaar te ci waxtaan yi moom moo waroon na nekk candidat benn mais loolu mënul nekk tant que Sall amul problème candidature mais dafa jàppoon ne Macky Sall mënul dem ah, mais mais on dit la même <laughs>